ñu ngi lay nuyu bu baax bonsoir. bonsoir. noo def. alhamdulilah. sénégalais namm nañ la. maa <laughs> lan nga sentir bi nga duggee ci salle bi rek ñëpp kontaan yuuxu tàccu la félicité la. Euh, am mbégte lool parce que je crois que bu fekkente événement bu euh, day nii euh, ràññee nañ la ba jël la pour nga bokk si ñi koy ñi koy animé donc je crois que mbégte la itam et day wane rek itam que bon am na fuñ la teg. si ko ñu boole la si euh, loo xam ne lii day dajale ay dëkk yu bari yu nekk si Afrique en plus que mu nekk événement bu am solo euh, nga fekk ko teewe ko euh, bokk si ñi koy ñi koy animé je crois que loolu da nga siy kontaan rek pour wàññi ne itam que yow yaa ngi fi et que voilà compté nga si ñi nga xam ne ñi xëy na peut ñoo def même liggéey que ni ñu gis ni tonton euh, vous vraiment présent même à l'international xam nga ñu Sénégal fii pour ñun ku dul génn chaque jour chaque jour di def euh, des interviews wala di génn tout le temps ay clip que euh, présenté woo mais gis nañ ni tey événement yu mag yëpp macha allah bokk nañ ci yow dañ lay choisir mais même à l'international dañu gis aussi tout le temps yaa ngi foofu di def ay concerts et tout ça donc loolu ban ban secret la. <laughs> Euh, non suñu métier la ñuy def rek parce que je crois que itam yàgg nañ ci euh, at bi ñu ngi fêté cinquante ans si de carrière donc mu nekk loo xam ne lii bon lu lu yàgg la Euh, que ba léegi ñu ngi ci quoi ñu ngi def suñu liggéey normalement xëy na nag peut-être wax wax ji moo bariwul. Mm-hmm. waaye ñu ngi ci scène bi encore une fois je crois que d'ailleurs sax euh, euh, fin du mois bi dañuy continuer encore dem tourner à l'international donc ce ki prouve effectivement que mm-hmm. groupe bi am na lu mu représenté sur la scène international je crois que loolu mm-hmm. dafa am solo lool si ñun ñun ay sénégalais lañu. donc euh, musique bi ñuy def itam dañuy euh, wane sunu réew sunu identité aussi moom la ñuy véhiculer yóbbu ko bitim réew je crois que ba fekkante ne ñiy organiser ay festival ak euh, événement yu mag yi nekk à l'étranger buñ ñu taamoo boolu ñu si ñi ñuy jël je crois que ñu fekk fa suñu ay moroom yoo xam ne africain lañu duñ ci def lu dul kontaan ci lool et wane ne itam que li ñuy def itam am na ñu ko bëgg ñu ko ràññee itam te loolu sa satisfaction la Euh, pour ñun en tant que sénégalais mais pour sunu musique itam. Mhm. alors ñu gis ni euh, récemment artiste bi di Youssou Ndour euh, doon na jouer international yuuxu yi te gis nañ mu ngi répété wu un peu partout ci sunu artistes yi ndax yëfi politique mais gis nañu Omar Pène mosuñu koo dégg ci loolu amul benn sénégalais bu ngàññi liggéeyam lu muy def lan nga jàpp ni moo war a doon sénégalais war a may doole sénégalam même bu ñu demee au niveau international ñu gis ñu ngi leen di yuuxu wala ñu ngi leen di dëkkal foo xamante ni peut-être du image bu ñu war a gis ci Sénégal. mais que lépp loo gisee da nga koy teg bi war. parce que bu fekkante ne yow musique ngay def euh, da nga jóg pour bégal nit ñi donc musique lañ lañ fa wax. Mm-hmm. bu dee leneen la itam loolu itam nga nga wane fa sa bopp mais musique moom wax dëgg yàlla affaire mbégte la. Mm-hmm. parce que bu fekkante ne da nga jóge sa réew dem ba yeneen euh, réew euh, di fa wane sa culture dajale nit ñi ñu ñëw fekk ci la nga wan leen loo xam ne li xëy ne day seen xol. je crois que loolu dafa war am ambiance boo xam ne bi xëy na peut-être loolu lay ëmb. Mhm. mais war ñu si boole loo xam ne li bokku ci. parce que amul foofu du place mhm. mais lépp la gis rek dafa am place am. Mhm. bu fekkente ne affaire politique la ñu dem si ñuy politique ñu def ko fa. mais bu fekkente affaire musique la musique moom affaire euh, mbégte la daal maanaam. voilà bu boo fekkante da nga jóg pour dem seeti artiste bi nga xam ne bi day def day def euh, day def prestation da nga war a dem pour euh, pour bégal soxol mais su fekkante leneen moo la fa yóbbu itam euh, bu fekkante da nga dem pour pour pour pour yàq euh, itam bon loolu je crois que amul amul benn solo. Mm-hmm. parce que du ña fa nekk itam du ñëpp a nekk sénégalais. Mm-hmm. am na ñeneen ñoo xam ne ñi yeneen xeet lañu. Mm-hmm. mais bu ñu gis ne yéen ay mbokk ngeen te nii ngeen ñi def loolu je crois que baaxul pour pour artiste bi et baaxul pour pour sa pour sa réew itam. mais je lu am solo la parce que tey euh, entreprise dafa am solo euh, parce que sur le plan économique je crois que Afrique dafa soxla ay entreprises yu am solo yu am doole itam pour euh, ñu gën a suuxal suñu continent. parce que je crois que itam day wane rek ne Afrique ñu mën a liggéey ñu ngi fi ñu am ñu xarañ aussi pour jëmale suñu continent kanam la. boo te yu mel nii ñu ngi koy organiser pour éventuellement pour di sargal. ñi nga xam ne ñi ñoo yëngu si domaine yooyu bu ne day wane rek ne am nañu capacité pour mën a yóbbu suñu continent si kanam a kanam loolu am solo la merci encore